suñu kémtalay kàttan ndax jaamu yàlla la ci ñun balaa dara li ci tegu nag di lu ñu war en tant que institution président de la république ak responsabilité yu ñu gàlloo ci suñu loos ci tiitre boobu ba kenn koo xamante ne mu ngi ci Sénégal constitution garantiral ko liberté de culte maanaam mu tànn ci boppam gëm-gëmam ak naka la fas yéene ko wéyale fas yéene jaamoo yàlla ñun suñu responsabilité mooy àndil ko meilleure condition yi nga xamante ne dina mën a jaamoo yàlla fu mu mënti nekk ak nu mu ko bëggee te ñu respecté ko ci loolu nangul ko ko jàppale ko ci tamit te ñaan yàlla yàlla nangul ko lépp loo xamante ne mu ngi ciy góorgóorlu kon ku ñëw fii Tiwaawan ci gàmmu damay gëm ne bu amee manquement boo xamante ne ci état bi la waroon jóge toor bi ci man mii la nekk ndax man maa ko war a garantir liberté du culte ak fépp fu mu nekk pour woyale ko foofu kon loolu moo waral ci bu ñu ñëwee ñu defoon la direction des affaires religieuses boobu ba tey nag may doon xool kenn koo xam ne laalewul dara ci politique waroon ko tànnee ci xam-xamam ak gëstu yu mu def ci xam diine Sénégal naka la tëddee ak naka lañu koy doxale mën a jëflanteeg ñëpp alhamdulilah rabil alamin yàlla def na xéewal ci senegal ba façon xeetu xam-xam bu ci ne am nañ ko fi xanaa bañ a daj rek te bu ñu seetee dinañ gis tax loolu mënu fee jafe am nañu yaakaar ne ki ñu waxtaanal te fas yéene ko tàbb ci fan yu neew kilifa diine yépp ak këru diina yi dinañ ko jàppale te xool tout le temps ci ñun suñu yéene ñu yàgg ko affirmer ci lu ñu war a assumer laïcité ci suñuy dëkk mu bañ a nekk état boo xamante ne yoonam nekkul ci diine waaye mu nekk état boo xamante ne dafay gunge diine pour diine mën ko delloowaat ay citoyens yoo xam ne dinañ nekk ay citoyens yu mat sëkk parce que dara gënul mën a def dara mënul gën a defar nit doomu doomu aadama que diine kon lu ñu renforcer rek investissement la ci ñun ci citoyens yi nga xamante ne moom lañ ñu war a delloowaat kon sant nañ yàlla bu baax a baax ba am nañu ko njëkk naa ci waxtaan ci ba ma doon recevoir association imam yi avant tabaski bi ma ne leen li may xaar mooy ñu toog réfléchir ci ay scénario ci ay pexe yoo xamante ne lépp loo xamante ne ci diine la te ñu war ko am taxawaay taxawaay boobu ñu nee ñu lii ak lii ak lii la ñuy xaar ci état luñ ci mën a matal incha allah rabbi nañ ko mën dañ ko matal lépp loo xamante ne nag des na nañ leen wax ne lii moo tax mu des waaye dinañ ci góorgóorlu ci anam yi ci diir gii li ci des nag mooy spécialement fii ci Tiwaawoon recevoir oon nañu comité bi nga xamante ne moo doon topp liggéey gi ci euh, jumaa ji profité ci occasion bi nag di santaat bu baax kilifa gi ci taxawaayam ci vision ak ci leadership am bu tax mu jox ñu joyau bu mel nii muy ndam ci bépp jullit ak foo mënti nekk ci biir àdduna liñ ci jëloon engagement tamit incha allah rabi dinañ ko mattali dem rek laa ci mujjee waxtaan am nañu pexe ji kon lépp luñ ci mën bu soobee yàlla dinañ ko matal moo amoon benn forage bu nekkoon ci biir ma ci waxtaanee ak ministre de l'hydraulique li ñu retenir mooy puisque forage baa ngi ci biir jumaa ji te jumaa ju toll noonu waxuma la rek waaye bu fa nit ñi dajee di jàpp di raxas jumaa ji parce que dafa laaj entretien bu ñu bàyyee mu am gestion commune kon ay factures yu bari rek lay andi ndax nit ñi buñ dee jàpp que dañuy selal ñu mel ne Ousseynou lii day jàpp lu ndox mi di gën a bari rek njàpp yi di gën a jub kon mën na nekk ay factures yu kawe ñu ne nag li ñu jël comme décision mooy ci RSE wu ONAS SONES bi ñu daal di jël forage bi jébal ko euh, xalif bi mu doon moomeelu communauté bi bu ko defee ngeen gérer ko ni ngeen ko bëggee te mu nar a correspondre ak li nga xamante ne noonu ngeen war a administrer jumaa ji de façon générale li ci des nag ci ay fan yu néew di ngeen gis suñu geste xam naa ne état yàgg na accompagner mais dañ ko nar a matal rek ndax accompagnement bi am na fu amul fu mu commencé sax bi fi état nekkee ba léegi mu ngi fi waaye amul fu mu em te ñun fu ñu ko fekk rek dañ ko bëgg a yóbbu fu gën a sori bu lii weesoo nag ah xanaa sàkku ñaan ci réew mi musiba yi bari na natu yi tamit xaw naa tar fan yi lool kon réew mi soxla na ay ñaan te xam naa ne tamit kilifa yaa ngi ci xanaa di gën a fàttali suñu bopp rek di fàttali responsabilité bu ñu yàlla natoo mooy jiite ko ci jamono ji ñu nekk di ñaan tamit ci ni leen jaam yi di dégloo taalibe yi te déggal leen ñu gën a waxtaan ak ndaw ñi te yaakaar nañu leen ci ñu delloowaat seen xel parce que xaru gi tamit du lu diine nangu te loolu lay nurool nag bu ñu gisee nombre de victimes nu ñu mel ak seen persistance bu ñu cay demee te gis liy xew dara xëyul sotti waaye yaakaar naa ne dina baax ñi nga xamante ne déggal nañu leen euh, ñu gën a waxtaanat ak ñoom te loolu moo tax lépp luy renforcer kilifa diine yi rek dañ ciy taxaw parce que dañu soxla ci seen crédibilité pour suñuy message mën a jàll dem ci citoyen yaakaar nañu leen ci torop trop trop torop kon lii laa bëggoon jukki ci ay kàddu di jégalu bu baax te di ñaan yàlla ñiy ñëw yàlla musal leen ci yoon yi di yam yaakaar tamit dinañ comprendre message bi ci télé bi ndax boo yebee ay bakkan responsabilité la nga jóg yóbbu ko ba fi nga xamante ne moom la la fayee xaalisam pour nga yóbbu ko fa donc responsabilité ci conduite responsabilité ci respecté ñi nga xamante ne ñoom nga bokkal tali bi bu ko defee ñu euh, wattandiku suñu bopp tamit parce que am na lu yàlla mën yàlla mën na lépp waaye am na loo xamante ne tamit yàlla daf ko délégué nit ki ci boppam mu war ko defal boppam nag mooy mooy tandiku ak wattandiku charte yi nga xamante ne ñi taj daje ci tali bi boobu la ñu war a chartoo pour ku nekk di bañ a ci loo xamante ne dina mën lor sa sa sa morom loraangi goo xamante ne duñ ko mën a defar kon euh, maa ngi jéegulu ci guddal gi ndax toogaay bi xëy na xaw na yàgg ci kilifa gi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf monsieur le président de la république sëriñ baa ngi monsieur le président sëriñ baa ngi lay sant ci kàddu yu rafet yi di la fàttali rekk di la wax ni gàmmu Tiwaawanu ren bii ñun la boole woon sëriñ Moustapha Al Amin sëriñ Habib Bosam ñu coordonné liggéey bi di ci déglu rakkam yu tedd yi bi nga fi ñëwee sa diggante bi ak ziar général ak diggante bi nga ñëwee ak gàmmu gi xatoon na gàtt na waaye première réaction bi nga jëkk a def mooy da nga wax ni lii sa itte mooy ziar bi ñu jëm ak gàmmu Tiwaawan bi ak jumaa ji lu waroon ci ziar bi def nga ko li war ci jumaa ji commencé nga ko wax nga ko gàmmu gi itam lépp lu ci waroon ñu def ca CDD ànd koog le préfet département de Tivaouane Hadj Mamadou Guèye instruction yi ngeen ko joxoon yépp jóge ci dem ci CRD ak gouverneur de la région de Thiès ba ci CND bi ak le ministre